mairie bu Dakar lëkkaloo ak mairie bu Grand Yoff tey jii ci altine ji nag dañoo amaloon ab tukkib nemmeeku fii nga xamante nag moom mooy Liberté 6 extension ngir nag seet ci liggéey bi nga xamante ne sumboon nañ ko mu ñeel wàllum pavage yi fan la toll. Barthélemy Diaz maire bu Dakar moom nag waroon na teew ci bés bi waaye nag dafa mujjoon ab ab ngant ki nga xamante nag moo di Pathé Ba moom moo ko fi wutu visite bi dafa am solo lu tax parce que dañoo japp ne dafa war a soppi xar kanamu cadre de vie wu ndakaaru bu ñu waxee ndakaaru Grand Yoff ca la bokk moo tax projet bi ba ñu ko tëralee boobu ba léegi amul benn yoon bu nga xam ne ay gëtu le maire monsieur Barthélémy Dias jóge na ci mi ngi mi ngi mi ngi taataan mi ngi mi mi ngi saytu projet bi loolu moom moo tax tey mu yabal ñu à son nom ñu ñëw fii taxaw pour xool vraiment liggéey bi fi mu toll pour mën a xam naka la ñuy def ba gën a pour que rapidement ñu mën ko réceptionner incha allah. ginnaaw pavage yi nee nañ nag fii dina am ay espace vert waaye tamit bërëb yi nga xamante ni daañu fi mën a tàggatoo xale yi daañu fi gis seen bopp mag ñi rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo di artistes yi. moo tax nag ñu defaree bërëb bile ay pavé yu dëgër yoo xamante ni nag seen yaatuwaay tollu na su juróom benn centimètre. waaw espace bi dañu bëgg a fexe Dakar waa bu ne Grand Yoff waa bu ne mën cee gis boppam at bu mu mënti am ak catégorie socio professionnelle bu mu mënti toll. moo euh, bu ci yalla andé dinañ fi aménager ay euh, espace fitness fo xamné ndaw ñi wala bok mag ñi dinañ mëna ñëw pour tagat seen yaram ndax ku ne xamné yaram dafa bok ci yaram dinañ fi aménager itam ay espace yu nga xam suñu doom suñu ndaw ñi suñu xalé yi dinañ fi mëna ñëw pour fexal seen xol pour fofi ndax ñëpp xam nañ ne fu mu nekk ni dafa raflé ci wàllu espace yoo xam ne xale dana fa mën a fowee donc dinañ fi aménager itam ay espace d'expression artistique dina am ay esplanade yoo nga xam ne képp kuy artiste di fi mën a ñëw def say exposé képp kuy artiste yu xam ne da ngay euh, yëngu ci wàllu divertissement di fi mën a ñëw pour euh, produire bërëb yu mucc ayib yi nag mënees na koo defaree ni nu mel te du am caytu gi ci war moo tax nag ñoom nee nañu daañu def seen lay kàttan ngir nag fexe ba aar bërëb bii lépp nag ñi teg ci waxtaan ak ñi nga xamante ñoo di askan wi. donc entretien bi je pense que waxtaan nañ ci léegi ak ay riverains bi ñuy dox di ñëw la mairie de Grand-Yoff am na lu bari lu mu préparé pour sauvegarder mais gérer l'entretien de ce bijou. waa saytu gi ci war dinañu ci liggéey dinañu ci liggéey bu baax ndax le maire Barthélémy Diaz daf ñu ne ça ne sera rien ñuy aménager ay espace yoo xam ne duñ ko mën a duñ ko mën a dundal duñ ko mën a suuxat motax comme niko sama natango le maire Pape Babacar euh, Diop waxé dinañu impliquer les conseils de quartier dinañu impliquer les associations de jeunes Entreprises, bi nga xamné itam mom mom lañuy andal ci walu liguey bi muy ERT mom itam dinañu ànd ak moom dans les premiers mois pour vraiment def suivi bi de sorte que né espace bi dinañ ko mën pérenniser bu baax te kenn du vandaliser projet bi nga xamanteni projet régional la te wa Kadak jité ko job job nak amal na ci ab jéego ngir nak indiko fi ci commune bi nga la mu dina am solo lol ci nekkinu askan wi. li solo moy cité nouvelle yi ko ko joy tax cité nouvelle yi cadre de vie qui ko gënal kon li dafa de solution bu am solo un xamanteni qui mën nañ ci à l'issue maintenant de ces travaux mën nañ après nous dugg dans les rues dans les ruelles des quartiers yi nga xam ñoo polariser les cités nouvelles pour continuer liguer liggéeyu cadre de vie bi. fii si Grand Yoff nak projet bi ñaari section lañ ko xaaj doore ko nak ci rond point SAMU japp rond point Liberté 6 liggéey bi nak ñing ko doon xayma si fukki weer waye fi toll ni nak door nañ ko bu yagg liñuy xaar nak moy paré ko laata nawet bi.